gan gi niñ ko waxee Anna Thiaw Abdou Sané la euh, coordonnateur euh, PASTEF euh, Ziguinchor di itam environnementaliste ñu ngi lay nuyu di la dalal jàmm ci matinalu Rewmi FM amati mbégte nga doon suñu gan. maa fay di profiter ci occasion bi pour ziar auditeurs yëpp di leen naan déwénu ci leen. Mm, taw bi ñu doon wax sànq da ñëw na Ndakaaru fi mu ne ñu ngi jot suñuy toqi ndox yu njëkk ci nawet bi di ñaan mu doon nawetu jàmm te mu bañ a doon nawet buy jur mbënd. alors bala ñuy ñëw ci nawet bi ab Abdou Sané ñu wax ci kàddu yi Ousmane Sonko seen leader yëkkati démb wax ci surtout jàpp gi mu njoxtu ne xëy na danañu ko ko jéem a def gannaaw ba ñu ko condamné mu ne bu loola amee na ñëpp wàcc ci mbedd mi ndax kon mën nañoo jàpp ni yéen a ngi waaj ñu teg loxo Ousmane Sonko. voilà donc euh, wax bu mu wax démb te mu nekk wax bu am solo. Mhm. waxu ko pour boppam encore une fois. jar loolu sama koy wax. tey ñun ñëpp kenn ku nekk xam ne ban taxawaay la war a am bu fekkente ne Macky Sall def na lu mu warul def mooy li ñuy wax injustice parce que man mii di wax ak yow ba léegi mënuma nangu ñu naan jàpp nañu Ousmane Sonko parce que li may njëkk laaj mooy lan la def si lan la ñu sukkandiku pour mun ko jàpp donc wax bu mu wax dëmb te mu nekk wax ju leer mooy wax boo xam ne moom la askan bi yenu tey askan bi yëpp. ñoom ñëpp d'accord nañu ni li daan am waratul am kenn du fi nangu nekk Sénégal ñuy seetaan nit parce que simplement titre président la yor muy def lu ko neex di foye justice bi nu ko neexee juge yoo xam ne aussi nangu nañu ñu leen di foyel te yem ci ñoom mais seen caaxaan bi mënul am benn impact par rapport à nous donc loolu wax ju leer la tey ñëpp pare nañu pour que bu fekkente ne am na lu warul am wala def nañu lu ñu warul def di nga ci kenn ku nekk jël ay responsabilité hmm. lan lañ mën a xaar ci jël ay responsabilité parce que yoon moo ko condamné euh, su ko yoon waree jàpp lan ngeen ci mën ci ci ci. boo nee yoon moo ko condamné. Hmm. kooku moom beneen affaire la. yoon musu ko condamné. ku ko condamné. commande politique. c'est-à-dire que Macky Sall dafa tàmm di tànn. candidat boo xam ne moom lay jëfandi dafa bëgg lu yomb dafa mel ni candidat buy élève bu nekkee candidat muy tànn dicté boo xam ne moom nga bëgg nga koy dicté mu tànn professeur boo xam ne moom la bëgg mu koy corriger mu tànn koo xam ne moom mooy def délibération bi Macky Sall dafa am habitude di tànn adversaire moo tax il gagne toujours sans gloire alors bii yoon dañ ko bëgg a woon ni bu fekkente ne parce que yow simplement da nga gis ni usman Sonko du sa morom da nga gis ni Ousmane Sonko xejul ci yow nga ne léegi da ngay mbubboo justice pour faagaagal ko wala pour tere ko mu nekk daal nax nga sa bopp ñi yeew nañu arbitraire mënatul am juge yi defee ne suñu jëlee seen tour jaay ko wala su njaayee seen am ni di ci topp ñoom ñëpp a yem donc fii lu leer laay wax lu jaar ci yoon peuple bi daf koy nangu loo xam ne jaarul ci yoon kenn du ko nangu parce que encore une fois lu ñu wax justice bu amee c'est rendu au nom du peuple le peuple doit en apprécier. Mhm. mais li am ni euh, li nga ci wax yépp euh, mën nañ la ko nangul ci wàll politique mais décision de justice lañ ko mën a tuddee parce que euh, en tout cas justice moom moo moom moo décidé si li ñu mën a jàpp est-ce que tey am ngeen moyen wu contrer boobu décision de justice wëlbati yëf yi. bo man ba léegi mënuñu d'accord ah man. waaw da <laughs> mënuñoo d'accord kay mënuñoo d'accord loolu nangu naa ko. tey foo mënta dem. Hmm. ñëpp dañu leen naan c'est une commande politique. commande politique ak décision de justice bokkul. d'accord premièrement bu fekkente ne décision de justice la comme yoon di nga ko waxee. Hmm. la justice est rendue au nom du peuple. donc kii di rendre justice war na seet attitude peuple bi bala muy rendre justice. li leer ba leer mooy naxe bàyyi c'est dépassé. chantage c'est dépassé intimidation c'est dépassé nit ñi dañu choisir rupture nit ñi dañu choisir changé totalement te su ma ne nit ñi dafa mel ni dafa am force bu bees nga xam ne pour l'essentiel ay jeunes lañu li daan am mënatul am ñi daan seetaan dootuñu seetaan léegi c'est le temps de l'action mm-hmm. nekk fi di lamantewu c'est dépassé nekk ci salon di lamantewu c'est dépassé affaire bi léegi rapport de force yi la te rapport de force yi c' est en faveur de Ousmane Sonko munoo yor ay rapport de force en ta faveur pare ñu lay toroxal ça n'a pas de sens. Hmm. ça n'a de sens loolu moo tax loolu moo tax ma ne la. Hmm. lu leer la. premier vague amoon na fi Macky Sall tëb woo ay quelques jeunes yóbbu leen jam yaa ñëw xalaat affaire xaalis mu waat ni dootul am deuxième vague am mu nekk le triple de la première vague léegi lan la bëgg. troisième vague bi boobu mooy coo ci fin voilà. pourtant dafa mel ni blocus ba ca cité kër góor gi mënoo leen ci lu bari parce que am na ñu fi annoncé woon déblocus balaa tabaski bi ay militants Pastef ne nañ dem dindi barrières yi waaye yi Askan Wi ne dañ koy jéem ñaar fukki fan ak juróom weeru juin lañ leen a gazé ñu dem ñibbi ba tey Ousmane Sonko ñi ngi wër këram ndombo mu nekk euh, presque en résidence surveillée depuis plus d'un mois loola moom euh, da ngeen ciy mënul dara wala dafa am lu ngeen di xaar. waaw bul wax mel ni ñun on n'est pas efficace teel yu gën a efficace mais Ousmane Sonko lu muy dund kër jur gi du blocus séquestration la. Hmm. te borom doole toujours day ànd ak xel mooy sunu catégorie. dañu yor doole mais ñun du ñu ko Macky Sall moom dafa yore puissance publique doole boo xam ne ñëpp ñoo ko bokk mu koy imposer nit ñi ñun dañuy ànd ak sunu xel parce que tey kër góor gi. ñun am na loo xam ne bu ñu ko defoon tey tey tey du yem ci kër Ousmane Sonko malheureusement quartier bi yëpp la loolu moo indi soo ànd ak sa xel parfois ku xamul day defe ne peut-être da nga incapable wala lii ak lii. mais dafa am lu ngeen di sóoraale dafa am lu forcément parce que daal këram nekkul isolé kër Ousmane mi ngi nekk ci wetu ay kër ci ay kër famille Ousmane mi ngi nekk autour des familles donc loolu bu fekkee yow da nga yor doole comme ñun ni ñu amee nii doole boo ci àndul ak sa xel di nga def loo xam ne dina ëpp ñëw regretter mais lu ñu war a def ñun dinañ ko def. te bu desul dara lu dul léegi trouver une solution définitive dañ ko trouver hmm. foofu laa koy yem pour le moment en attendant blocus bi am na benn avantage boo xam ne daf ñu ko may. mooy ban daf ñu may pour que ñu démasquer toutes les personnes hypocrites mooy ñooñu nga xam ne dañuy joxe ay leçons de morale di naan jàmm jàmm dialogue dialogue mais kenn ci ñoom kenn ci ñoom dénoncé lu blocus bi wala séquestration bi hmm. alors loolu lan la wane dafa am ay nit yoo xam ne sincère ñu am na ñoo xam ne dañu bëgg toujours loo xam ne mooy neex nguur gi loolu mooy indi duñu nangu dem jusqu'au bout de leur logique parce que mënoo ne na Ousmane dem ci dialogue pendant qu'il est séquestré mënoo ne violence baaxul pendant que Ousmane Sonko est séquestré nga ne yow boobu gis loo ko déggoo ko yaa ngi joxe ay leçons de morale la paix la paix la paix la loolu moo indi ñu naan les masques sont tombés ñi nga xam ne dañu hypocrite mooy naafeq yi ñëpp rek gis nañu leen xam nañu leen léegi combat bu naree am dinañu xam si est qui avec qui être et avec qui combattre loolu au moins permettre na ñu leeral lu bëri. Hmm. mais comme ni ma la ko waxee. élection baa ngi ñëw pour le vingt cinq février deux mille vingt quatre Ousmane Sonko dafay nekk candidat yemuñu foofu non seulement Ousmane Sonko dafay nekk candidat mais moom mooy nekk le candidat vainqueur man maa la ko wax tey. jàppan loolu. waaw euh, en parlant de candidature sax président Macky Sall tey la war a yeewi askan wi ci euh, ndax day bokkam du bokk lan ngay xaar ci déclaration bi war a no non non mais tey lay wax mais yeewi askan wi du Macky Sall Macky Sall takkul askan wi ba mu koy. yeewi mbiram kay nag faaw mu yeewi ñu ci. Euh, Abdou Sall moom du réponse mooy déterminer quoi que ce soit. ah oui tuuti na trop par rapport peuple Sénégal peuple Sénégal mooy doole bi peuple Sénégal mooy important bi mais benn nit nga bëgg xalaat ni ñun ñëpp dañu war a ci volonté loolu kon mu yow donc tey lu muy wax ñépp nañ ko déglu ku mu neex déglu ko mais am na wax ñoo xam ne bu méngool ak volonté populaire du dem. lan ngay xaar ci lan ngay xaar ci discours bi. bon volonté populaire bi mooy lii li peuple bi bëgg mooy lii Ousmane Sonko nekk candidat Macky Sall du nekk candidat point ñaar yooyu bu fekkee boobu bu fekkee loolu mooy indi discours am. Hmm. c'est bon leneen lu mu wax lu dul lii. cela veut dire que donc nekkul discours peuple bi alors là en ce moment da am la peuple contre toi donc c'est simple comme bonjour. d'accord kon li ci topp yëpp mi ngi dépendre ci li muy wax euh, naka la Ziguinchor dundee euh, tënk gi ñu tënk Ousmane Sonko ci Ndakaaru boobaak léegi ëpp na weer est-ce que mairie baa ngay dox yow bokk nga ci li muy ñi muy liggéeyandoon foofa ca mairie ba est-ce que am jafe-jafe bala may wax affaire mairie hmm. li Ousmane di dund nekkul affaire Ziguinchor rek boo demee maatam naxar la boo demee Diourbel naxar la boo demee Saint-Louis naxar la boo nekkee fi Dakar naxar la boo demee Thiès boo demee Sédhiou Kolda et cetera tout foo bu te dem ba ci diaspora ñoom ñëpp dañ ko naxarlu nekkul affaire Ziguinchor ba encore une fois Ousmane Sonko dafa nekk leader universel nekkul un leader régional wala nekkul un leader local dafa am envergure international moo indi diaspora bi ci biir le niveau national mi tam mi ngi ci biir au niveau de la mairie mairie baa ngi fonctionner parce que lan la le peu de temps bu ñu def ak daf ñu former ba nga xam ne ñun ñëpp kenn ku nekk ci domaine bi ngay intervenir am nga le sens de l'initiative mooy lan foo toog yaa ngi xalaat lan nga war a mën a def nga mën a kii maintenant am na loo xam ne daf ñu manqué parce que moom mu nekk sa wet toujours am na Euh, lu mu lay impulsé ci motivation am na lu mu lay jox ci chaleur affective loolu moom dañ ko dañ ko manqué mais pour ce qui est du fonctionnement de la mairie lépp mi ngi dox euh, euh, lépp lépp mi ngi marché tout marche très bien voilà. Mm. alors ñu des Ziguinchor ba tey euh, jafe-jafe am na ci dem geeg dikk gi ndax Sénégal dem dikk euh, dawatu fa euh, boobaak léegi am na diir bateau ba nga xam ne itam moo daan assurer navette bi defatu ko naka ngeen dundee loola situation la bu jafe buñ sukkandikoo ci kàddu yu bari yoo xam ne jóge na foofu ca Ziguinchor est-ce que am na njeexital bu tax ñu mën a wax ci wàllu koom-koom surtout. wala na nga ci dolli parce que Sénégal dem dikk effectivement dematul. bato bi dematul mais na nga ci dolli lan amoon na aussi semaine yële passé beneen arrêté bu gouverneur jël pour ne à partir de seize heures ci sur les routes nationales circulation bi dañ koy arrêté. wàllu kaaraange la waxoon moo ko waral waaw boobu mooy lan. boobu mooy une attitude combinée de l'État pour asphyxier la Casamance. dafa mel ni dañu bëgg a toroxal Casamance dañu bëgg a sanctionner la Casamance dañu bëgg a sanctionner Ziguinchor euh, la seule raison mooy lan Ousmane Sonko foofu la juddoo wala Ousmane Sonko. foofu la dëkk léegi comme foofu la dëkk te ñoom ñëpp kenn ku nekk ministre daan la mun a faagaagal Ousmane Sonko yeblu leen ci Ousmane Sonko képp lépp lu jege Ousmane Sonko il faut nga toroxal loolu moo indi pour la première fois depuis que man ma juddo ba léegi et depuis que le monde est un président muy xeex une région tey Macky Sall defantewul ak Ousmane Sonko tout court mais lépp loo xam ne dafa jege Ousmane Sonko muy la région de Ziguinchor muy la région de Casamance Macky Sall mi ngi di attaqué. pourtant boobu jamono taxawal na fi ANRAC di wax ne tam mi ngi def yeneen i jéego pour Casamance génn ci ruqe gi muy enclavement bi euh, loola est-ce que xel nangu na ko boo nee day xeex Ziguinchor xel nangu na lu weesu loolu sànq ANRAC bi ngay wax noonu ñi doon liggéey foofu wàññi nañu pratiquement moitié bi yëpp dañu leen tax financement yi waxoon pour yeneen projet yëpp taxaw na donc ñi fa nekk seen bopp lañu fa nekkal pour simplement nekk ay géwélu Macky Sall c'est terminé mais bu fekkee ne ànd ak ngay jël ànd ak léegi sax yow mi en tant que journaliste soo seetoon sa rédaction di nga gis ni ça fait des années am leen ci benn titre or kuy liggéey tous les jours on parle de lui beneen élément bi mooy Macky Sall fii en deux mille dix neuf ci élection yi dafa ne su fekkee Casamance dafa bëgg a le Sénégal nañu voté pour Benno Bokk Yaakaar non seulement loolu saaga la mais ndekete moom compréhension boobu la am c'est une façon de dire que ku ko contre rek doo bokk léegi comme nit ñi ci élection yi voté ko léegi il a choisi d'exclure la Casamance du Sénégal particulièrement Ziguinchor loolu dafa nekk lu grave parce que ci trahison la garaaw na de Abdou Sané torop sax parce que li Macky Sall def laa wax donc moom tey dafa waroon nag quelque boo xam ne ci serment bu mu prêté moom moo assuré assurer l'unité nationale mais léegi il a exclu une région parce que simplement Ousmane Sonko a des origines par rapport à cette région alors que Ousmane Sonko yàgg na ko rappelé jaxasoo na avec toutes les ethnies du Sénégal mais Macky Sall mi ngi gis le problème en terme de Ousmane Sonko Casamance la jógee donc lépp loo xam ne Casamance la jógee daf koy génn ci Sénégal donc la Casamance est exclue par Macky mais les Casamançais résistent Hmm. waaw alors euh, ndox mi itam tàmbalee bari foofu ca Casamance euh, am na taw bu fa taw euh, boobaak léegi am na ñaar wala ñetti fan daaneel sax benn pont bu nekk ci route nationale 4 bi booru Saré Alkali ngay environnementaliste naka ngay séentoo nawet bi surtout foofu ci Casamance mais ci Sénégal yëpp parce que ñu bëri aussi fi mu ne seen fit dem na ndax mbënd mi donte état yëgle na ni dana def kéem talaay kàttanam annoncé aussi ay moyen yu bëree bëri pour xeex ndox mi lan ngay séentu ci nawetu ren bi. nawet dafa bokk ci lu ñuy wax la vie. Mhm. lépp loo xam ne ndox la indi ndox dafa nekk loo xam ne lu baax la léegi boo ko jëlee ci fànnu inondation kooku moom ren bu fekkente ne waa ANACIM la ñu prévoir loolu mooy am xamal ni inondation day amaat parce que naan la Macky Sall mosul def liggéey bu sérieux mal gouvernance tax na ba même foo waroon dépense un million di nga bëgg dépense cent mille francs pour jëflantu neuf yeneen neuf cent mille francs mooy lu ñuy wax opacité des marchés. amul benn transparence loolu moo indi ouvrage boobu ngay wax noonu ci pont bi si yoonu Alkali sur la route nationale numéro 4 taw bi amoon nekkul taw bu exceptionnel taw la comme taw yi daan am rek mais pont bi daanu qualité liggéey bi moo baaxul liggéey bi moo baaxul parce que lu ñu waroon dépense pour que mu nekk pont bu dëgër moom la ñu deful ndox bi ñëw na mu kii ko mais comme malheureusement c'est dans la Casamance dafa gën a enfoncé enclavement Casamance yaa ngi doon wax Sénégal dem dikk du dem. Hmm. maa ngi doon wax arrêté bu gouverneur boo xam ne 16 heures lay ñoo ngi doon wax ni bateau bi tam du dem léegi bi ñëw encore renforcer enclavement région bi may wax avant-hier ba hier carburant amatul essence muy essence muy gasoil amatul donc problème bi leer na c'est que parce que Ousmane Sonko côté boobu la dëkk lépp lu ñu mën a def pour faagaagal région boobu kenn ku nekk ni ngi koy def te ku ko def rek nga am promotion yow tey boo nekkoon préfet wala boo nekkoon gouverneur wala boo nekkoon procureur demal Casamance defal loo xam ne du baax pour Casamance mais day neex ma Sall di nga am promotion. kon daal da nga yaakaar ne dañoo bëgg a sonal askan wa bu ko defee xëy na ñoom ñu mer wëlbatiku ci Ousmane Sonko. loolu nga bëgg a wax non askan bi déjà moom mi ngi ci Ousmane Sonko. Hmm. te ku xam Casamance nu mu mel ak seen taxawaay du loolu moo mën a tax ñu changé. tey la Ousmane Sonko gën a am doole. donc ah. ñoom ñoo xamul rek ñoom ñoo xamul rek am na lu ñuy wax chantage moom la ñëpp bañ am na ñuy wax pression moom la ñëpp bañ am na ñuy wax intimidation moom la ñëpp di défier donc ñoom attitude bu ñu mënta def du am benn impact comportement politique des militants ou bien des sympathisants ñooñu Ousmane Sonko ñu gis moo leen doy loolu moo indi ñu gagné Oussouye ñu gagné Bignona ñu gagné Ziguinchor et c'est la première fois pour un leader casamançais de surcroît mu gagné la région c'est la première fois depuis que le monde est monde donc loolu am na lu bëri lu mu or Ousmane Sonko il est universel Ousmane Sonko lu mu cartonné au niveau de la diaspora kenn defu ko lu mu cartonné dans les zones de Touba Dakar un peu partout Thiès Tivaouane Mbour tout ça c'est il est universel mosul nangu le repli local le repli régionaliste Macky Sall a fait le repli psycho-affectif loolu moo indi mu développé le benn ne doo ko bandong parce que pour moom ay mbokkam ñooñu ay nit yu baax la ñu mënuñu ko bañ a jàppale mais keneen ku am loolu rek mu defee ne yow say nit war nañu nekk ay nit yu bon pour que moom mu kontaan pour ñu naan ñële day jàppale wu ñu seen mbokk donc autant il se réjouit de son nez de Koumba-Ndong autant les autres sans que mu nekk nez de Koumba-Ndong yàlla may leen ñu am la confiance de de, de leur leader mënul supporter loolu moom mun na accepter que mbokkam voté ko pour moom mais bu gisee nii fële kenn voté ko rek mu xalaat problème bi comme moom du mu ko gisee donc il fait un transfert de compréhension et de perception loolu moo gën a bon dafa foog ni moom nu muy xalaatee noonu la ñëpp di xalaatee ñoom non ñun en Casamance avantage bu ñu am mooy lan dañu nekk dans une société ñun ñoo am religion boo xam ne chrétien et musulman dañ ko bokk donc boo nekkee une pure Casamance da ngay dépasser les considérations spécifiques da nga koy dépasser forcément man mi liyu ak yow suñu ñoom pap ñu ngi am ay jabar pël ay jabar mankañ ay nangam nangam lépp jaxasoo donc culture boobu moo indi am la tolérance ak l' acceptation de l'autre mais Macky Sall côté boobu dafa am beaucoup de retard tey mu ne léegi xeexam yematul ci Ousmane Sonko mais il veut combattre toute une région on verra bien est ce que un président peut gagner un combat contre une région jërëjëf Abdou Sané ñu ngi lay gërëm euh, amoon nañu mbégte dalalaat la ci matinalu Rewmi FM di fàttali ni yow yaay euh, coordonnateur Pastef Ziguinchor euh, nekk itam environnementaliste. maa ngi lay fay di lay encore une fois renouveler déwénal ci pour l' ensemble de tous les journalistes ah. de Rewmi FM seen mm. patron propriétaire rajo bi di leen di encourager di leen di souhaiter pleine pleine réussite pleine réussite voilà